أسير مع الأبرار هنا أسير العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكو جلدي بكو انترنت إيجا خمد باقو بخول سيد IJFM.SN نا بني سنتي يالا سي خيول جمعي دفن مي خيول فكي وات 18 سفر فتبارك الله di bés bi nga xam ne si la suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu waxoon ne nañu ko santale suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax di julli di sëlmal si gën bi def si yidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah li ñu bëgg a waxtaane rek si diir bu gàtt incha allah mooy li nga xam ne moom moo di solos màggal bi ndax ku ne xam na ne kaay leen sant borom bi subhanahu wa taala loolu ku la si woo rek woo na la ci yiw woo na la ci xéewal waaye itam woo na la ci li nga xam ne suñu borom moom la gën a bëgg mooy ku ko sant boo xoolee alquran sax yàlla si suratul fatiha li mu ko ubbee gannaaw basmala maa ngi moo di alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo njëkk sant boppam kon bu yàlla dogalee suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu ay natt wàccu ci kawam mu waroon dem def li nga xam ne mooy tukki géej gi mu ne bés boobu mu doon si géej gi bu dellu seetee nañu ko santale yàlla subhanahu wa taala kon loolu liñ si njëkk a jàng ne mooy kooku ku nangu woon ay natt la waaye itam ku mënoon muñ la waaye itam ku xamoon dayo bi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa jox la loolu day jàngale ne moom suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu taala am na yoon boo xamante ni trase nañ ko mooy leen yoonu nangu nattu ndax jullit day nangu nattu mënoon na ne bu ñu ma ñibbisee nañ ko def bés boobu waaye déedéet bés bi mu doon dem si géej yem moo 18 safar bés boobu la ne nañ ko santale yàlla subhanahu wa taala ndax moom kott dong lottu na si sant yàlla subhanahu wa taala moo taxoon wax ne xarajtu yowma sabti thamina achar li xidmati lmuxtaari fi chahri safar mu ne bés bi ma génnee dafa yemmoo woon ak bés bi nga xam ne bésu gaawo maanaam bésu samedi mu nekk fukki fan ak juróom-ñett si biir weeru safar mu nekk فجنون دني من الخدمة المختار من غير دم لجيلي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده مام سليم مام شيخ الخديم رضي الله تعالى عنه وحنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موكا وان برم سبحانه وتعالى يلا البتكو دنكو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون لولو دي تكلنا مام amna da daraja bo xamanteni bu kawé kawé kawé la ci suñu borom subhanahu wa ta'ala batay si solo su màggal bi si tukki géej googu keroog la ko yàlla tappal garaat bi nga xamante ni moom kott moom dong moom Serigne Touba maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu moom la ko am loolu moom moo di garaadu la garaadu xaadimu wala yàlla bu nekk jaar na fi nekk dëgg nañ ko grade ne am na ko waaye grade bu xaadimu rasul moom la ko yàlla tappal keroog ba muy dem si tukki géej moom Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu moo wax loolu ñu ne ko bindal ودعل من الرحمن في السفينة بأنني خادم ذي المدينة الله أكبر يلا خمل نمان سبيل قال جي ما دون دفع توتي جيجينا من مي من ماي خادم رسول يلا نمو نمان تقل قرار فوق تقرار فوق لك بيكو كتقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو موكو نيان يلا ما نام محمد صلى الله عليه وسلم مو ديو أكيال نكو dama bëgg a tappal Cheikh Ahmad Bamba mi radiyallahu anhu garabu xaadimu rasul yàlla nangul loolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ko suñu maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu kon lu mel noonu bu amee bés boobu am mu ne bés boobu démission nañ ko ko santal loolu mooy wane ne bés boobu la am daraja yi mu am si kanam suñu wa taala bés boobu itam ko yàlla def li nga xam ne la ko def waaye itam bés boobu la raw képp koo xamante ni raw Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu kon liñ ciy jàngat te mooy nañuy muñ nañuy nangu ay nattu waaye itam nañuy xam ne lu am rek suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko dogal ndax suñu maam Cheikh Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu nangu bu mu nangu woon moo taxoon yàlla subhanahu wa taala fayee ko loolu te liñ siy gis tey mooy que ne pay googu mu si am yàlla defal na ko ko mu nekk teraanga xewal àdduna ak àllaaxira ku ñëw Tuubaa gi xam ne suñu borom fay na ko kon pay gogu yàlla ñu ci yàlla bindal ay yiw yeb ba ter bala ñu dem di taxaw ci kanam suñu borom subhanahu wa taala loolu lañ leen andiloon doon si waxtaan ak yéen à travers le site igfm.sn site bi nga xamanteni mo moom aduna ñëpp di ko war incha allah subhanahu wa taala dañu ñu andi leen leneen ci suñu maam cheikh Khadim radiallahu taala anhu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asiiru mahal abraari hiina asiiru